Sénégal benn rek lañ ci pour wax la ni yitte ji des na te neegar la woon comme ñun neegar la woon comme ñun il était aussi nègre que nous téere ak ñaar fukk ak ñeent kenn rekk ku ëpp lu mu taalif muy imaam Shafii téere yi mu taalif tudd na ci yoo xam ni ñu ngi koy sog a tudd ci biir jamono te mooy comportement médecin yi seen digganteeg malade yi tudd na ko def na ci téré nee na jamono gi ñëw yo xam ni dina ci poser ay problème tudd na ñi ñuy tudde alqudaat mooy attekat yi xëy na bu doon tey magistrat la ñuy wax mais li ñu xaw a wuuteeg magistrat yi mooy xudaat yi amirul muminina rek a leen di tànn keneen bi ci bokk waaw amirul muminina bu tànnee qaadi xaadi ba lan lay def lu dul tëj téeréem te déglu amirul muminina li mu bëgg mu def ko yàqu-yàqu bu rëyee ci juddoo te wax na ko moo tax ñuy werante qaadi war nañ ko fay walla waruñu ko fay ñuy werante ndax wakiilul xusuma war nañ ko fay walla waruñu ko fay wakiilul xusuma mooy li ñoo tudde tey ci arab yu bees bees bees yi li ñuy tudde muhaami yi Euh, wakilul xusuma moo moo moo ëpp moo ëpp solo ah. avocat nga tudde ko wakilul xusuma moo ëpp doole nga tudde ko mahami wante itam ñun dañu xaw am complexe euh, yi ñoo tëral ci yu bees bees bees yi ñi koy defit layal nañ ko wax ni parce que jamono lañu ñu bañ mu raw leen te jamono raw na leen ba noppi nag wax dëgg yàlla ndax a ah, sunu borom ak xereñam ni jamono doxe te conflit bi am diggante lislaam ak Occident conflit culturel. la Boussago Amé, Denaman sago dana man bañ indi ay Ata tax Amé, man bañ indi ay wante amul te prince héritier bu Angleterre wax na ko nee na ñun li nu war mooy delloo mbàttu bi ci ndaal yi parce que itam nag bari na lu nu am ci xam-xam te ci dënnu yonent bi la jóge bari na lu ñu am ci xam-xam te ci dënn yonenti bi la jóge محمدا في علمه فالعلم فيه خسارة وملام مأبن لجمالك الأحلام من لم يعد محمدا في علمه فالعلم فيه خسارة وملام أبدا في علمي فالعلم فيه قسارة وملام إن الحياة بكلها هي لحظة ينتاب الإقدام والإحجام وأمام آيات الطبيعة قد غدا تتخبط الكتاب والروام ما فيهم للناس إلا حائر ومحير تطغى به الأفهام لولا النبوة ملك والوحي الذي سلكت بنهج سبيل الأقوام فأتى بي موسى بألواح صمت فغدا بإسرائيل في لزام وروى عيسى المسيح وحوله زمر بأوساط الرجال كرام وهدى بي أهل البساط محمد لتزول عن غاياته الأوهام فاسأل أجبك بأن نور المصطفى طهور به الأرواح والأزام الحادثات وما بها من حكمة وتنوب الأعوام والأعوام وتصرفات من إله القادر إذ لا يفي بالحادثات كلام فاجعل من الأشياء حدك قبرة بتفكر يدنو بي الإلام ما منت سقراط والملئ الأولى تبعوه إلا غربة فحمام وكذاك أفلتون في آرائي من نقد حرره ولا الإبرام من لم يعد محمدا في علمه فالعلم فيه خسارة وملام أكرم بأحمد في نظام المولد أكرم بمولد أحمد من مولدي قل لسؤول فبدعة مرضية أعظم بها من بدعة لم تجحد كثرت أساطير الضلالة في الوراء والدين معهود بما لم يحمد والحق عارية بأيدي ظالم والخير شر وديعة للمعتدي والعلم الضحى للهوى كمساند والعدل عدل تحت أمر الحسد والماء صرف في العناد وإنما حظ الأمير الفرد حظ المفسد لكن مو لدى أحمد من شأنه رد المخاوف كلها عن موردي كل شيء في العوالم كلها إلا كما خطت به الأقلام تاهت بنور جمالك الأحلام يا من هو الخلاق والعلام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 إلا كما تندك قرب جلالها الأعلام سلام هذا وأهل الأرض تطلب رزقها ماء ونبتا حوله الأنعام وخصائص الغازات والطاقات في صلب وإيجاب له الإلام ما الناس ما الأكوان ما الملأ الذي في الجو ما الأفلاك والأرقام ما إلا غبار رون من قدر سما ومن السماء من الأمور إذا سفكني كبارك يونتي دفعن بني نيت كنيول jomi boppam ak bañ ku yab baayam dem na ba téere yi mu taalif ñépp ngi koy wut fi mu nekk jafe gi ëpp na mën naa wax ni ñaari at ma topp ay wëllëre ba liñ ma ci amal juróom-ñett la te taalif la téeméeri téere ak ñaar fukk ak ñeent te nègre la papam du borom barke amul fànn bu mu ci tuddul amul mu mel ni kon doomu soxna yi kon ñoom lu ñu war a def kon ñoom lu ñu war a def ci bi jamono xam-xamu yonent bi ñu ko donn mu nekk ci seen dënn léeg ñu wax benn wax bu nga xam ni doo xam noo koy layale nga dem a dem a dem ba jamono layal ko boppam loolu agsi nañ ci fu nga xam ni fii ci Sénégal war nañu seetaat seen bopp ci wàllu googu bu dee ci côté mag bu dee ci côté ndaw bu dee ci côté jigéen kenn ku nekk danga am ndono boo jëlee ci yonent bi waaye itam terewul ñu xam ni léeg-léeg jamono àgg fu nga xam ni kenn mënul tëb tëb dindi ni jamono doxe kenn mënu ko la ngay man kay mooy bañ a weddi yàlla loolu ngay man bañ a weddi yàlla ndax li cheikh alxaaj malik radiallahu taala anhu waxoon dafay faral di wax ni jullit bu niséree na ko mottali yàlla àtte bi mu demee ba ñàkk yaakaar ci réew mi mu jël bagage bu jekk dem Madina pour dëkkaale ak yonent yi mag mu baax gis ko ni ko fii du sa place ndax gan nga fi te ñi fi ne duñu am kersa ci yow kon li ñu gis ni mottani ci sa wàll mooy nga dellu soo delloo faatiye bi nga mokkal koo ko jàngal rekk baax na loola tax mu dellusi ba tax na tabarkalla tabarkalla léeg-léeg yoon ni la defal nangam gàllankoor am ngir ko jamono yow nag yaay xam sa bopp yaay xam la nga man ak la nga mënul waaw waaye ni par force ko yonent bi waxe laa koy appliquer doo ko mën doo am kàttanam mukk ndax ni jamono demee moo tax waaye su la neexee nga suturaal sa bopp ndax itam nit dafa amee statut doomu aadama dafa amee statut statut mooy jawaaz sunu boroom jox boppam ay statut bi mu jox boppam mooy wusu yàlla ne man rekk maa war waaw man sama dund rekk moo war ñi ci des ñépp seen dund dafa dagan wante warul maanaa lu ma neex ma def man yàlla ndax man rekk maa war man rekk maa nekkoon keneen nekkul ba ma xëy mu neex ma ma bind ñeneen kon ñi ma bind seen statut bu jawaase rekk la bu waroon duma leen rey waaye statut jawaase rekk la passé wu ko mi ngi mel ni 15 bi ci sa poche nga ni dama xiif dama bëgg a jënd mburu ci sama fiftin bi nga dem ba jub jaaykatu marché fiftin bi ni la tey dooma jënd mburu guro nga ma jënd noonu rekk la demee ba tax statin bu jawaaz rekk la paasewu ko lu mët a bàyyi xel yàlla li ko neex rekk lay def xamul leneen ndax lépp moomam bu loolu paasee yonent yi la doxale suñu diggante ak ñoom ba itam jamono yonent yi tatawuraat yi am ba ba ñuy agsi fii ak kilifa yi wuutu yonent yi di leen seetal jamono ak jamono bu nekk la mu laaj ñu def ko loolu bu mu la teqale ak sa ngëm bu mu la teqale ak sa ngëm waaye jamono dina di soppeeku loolu ku nekk xam na ko euh, bu ko defee kenn ku nekk su fekkee am nga kilifa kilifa ga di la dimbale ci xalaat euh, ka ca des am kilifaam kilifaam di ko dimbale ci xalaat bu ko nee muurul mu muuru muuru du rey wante itam muuru du alalu lislaam rekk jiitu na ko mais am na ñoo xam ne defe nañ ni alalu lislaam la mais du alalu lislaam jiitu na ko te am na ñu dul jullitit warlu ko ci seen bopp loolu am na moo tax jarul xuloo jarul xuloo am na ñu nekkul jullit te warlu ko ci seen bopp am ñoo xam ni ñoo jiitu lislaam daan ko def mu mel ni kon jarul jarul soow jarul xuloo ñu di ci seet rekk ndànk-ndànk ci ban façon la te bañ ko def def yu nu xuloo boobu itam du ko mët nag dafa fekk dañu nekk ci système u jàmbur te mooy système tubaab yi am na ci yoo xam ni dangay waaru ndax tubaab dafa bari doole te ñi ci ëppit dafa mel na dañu gaaw a sawar ci tuumaal jullit te kooku erreur gënu ko garaaw te li tax ma di ko wax bés bu nekk dama ciy àtte dama ciy àtte ay ay nit yu ci bëgg amante ay te du ko jar nag te du ko jar ñenn ñi seen goroy dal ci seen kaw nangam nangam bërki démb mooy ci mujj te yooyu yëpp nag matu ko dëgg la nag jigéen am na lu ko yàlla defal di ko yàlla defal mooy mooy jur góor tabarkalla tabarkalla itam ci wàllu diine am na lu yàlla sàkku ci moom te mooy mu suturaal boppam ah ci biir loolu yëpp yonent bi dafa am yu bari yum ci wax nit ñi defe ni pour sonnal jigéen a tax mu wax ko mais xam nature profonde bu jigéen moo tax mu wax ko la mu ca xam kenn xamu ko waaw euh, euh, façon boobu ñu ñuy interpréter wax bi mu wax ni na nga diisoo ak sa soxna wante lu mu la wax nanga def safaan ba kooku waxin la kooku waxin la te ci domaine psychologie la lu mu wax rekk am na cadre bu tax mën nañ ko ca dugal wante boo ko bëggee jàppe pour xuloo rekk àdduna tukki nde moom wax na ci làmmiñam ni euh, soo soo bëggee def dara diisool ak sa jabar wante la mu la wax defal safaan ba moom wax na ko mais mais du caagi ni pour xeeb jigéen a tax mu wax ko mais xam nature profonde bu jigéen moo tax mu wax ko lu ne xam na ko tabarkalla yàlla koo xam na lu nekk xam na ko yàlla moo ko ko xamloo ba tax na kon nag eh, suturaal sunu bopp rek moo ci des il faut que ñu suturaal suñu bopp ci côté bu mel noonu pour affaire muuru yi itam am na façon bu nga xam ni aayul mais am ndax façon bu nga xam ni ëpp na kooku dafay am waaye terewul yooyu yépp nag bu ko xuloo lal ndax bu ko lalee rek yàqu-yàqu am ndax nag kenn du yàllay kenn yàlla moom mooy yàlla moom moom ñi ci des dëgg la nag bu ñu la nee yonent bi wax na nàngam wax na nàngam wax na nàngam wax na nàngam bu ca xuloo juddoo rekk ñaaw ñaaw dikk sa boobu baaxul waaw ah, bi ci des mooy waxtaanu diine li ci Cheikh El Omar wax nee na ko fekk muy waxtaane waxtaanu diine nee na laaj ko mécceem nee bu la waxul mécc mu wóor rekk mu ko mën a dundal nee soo yeboo nga caw ko parce que waaraate wàcc na ko góor bu amul mécc lu moo waaraate moo ko wax te itam noonu la àdduna it dafa jara bàyyi xel ba tax na yooyu yëpp jarul werante jarul soow fii tabarkal la tabarkal la ku ne xam na ni jigéen yàllaa ko teral bërki démb la tubaab yi sog a nangu ni góor ñi c'est une intelligence euh, presque 60% y jigen ñe qui def ci ñom parce que gore il fait je dof rek la wa lool nak kenn du la ko defal nga diko yabati waaye itam rekk ñuy seet rekk lu ne lu ne dafa am ndax euh, téere bi mu def ci wàllu jigéen ñi moom jaaxir ak bi mu def ci wàllu euh, li ñoo tudde aar ak ñi ko jëfandikoo yu yëpp tudd na ko ci ci façon bu nga xam ni ca troisième siècle la woon ñu ngi ko soog a yëngal ci yi jamono ñu ko soog yëngal ci jamono bu mel ni kon nag xam naa tolérance baax na ëppal rekk a bon tolérance baax na ëppal rekk a bon ndax yonent bi yàllaa ko may xeetam warul ëppal fii warul ëppal fii na nekk ci digg bi rekk loolu moo war ci xeetam ah comme wax na ko ba noppi itam fokk ñu fekk ko ci loolu mooy li ci am solo su ko defee nag ci biir loolu ñu di ci bàyyi xel na jamono yi dafa soppeeku bu mu ëpp itam gëlëm-gëlëm yi dafa bare ba mu ëpp te ni ma leen ko waxe ci njëlbeen gi gëlëm-gëlëm bu ëppee te bàyyiwuloo sa xel ci sa bopp da am na benn nit bu ma doon nettali ni ma dama di tuubeen ne na am jikko safaan yu bare yu nekk ci man te bi ci yées mooy lu ma gis rekk te mënuma ko sàcc sax toog fa di jooy nee eh, te boobu Sëriñ a ngi dund nee ma ñëw ci perong bi fekk fay sàkk dugub ndeke muurum koor la nee na ma bëgg sàcc ci muurum koor mi nee na taxaw ma nu ma ko defee nee na ma jël buum takk sama ñaari tànki tubéy ci sama yeel bu mu dëgër nee na ma rekk ci sama tubéy sol ko ba mu fees dell ak dugub ne ma takkaat ko fi ma koy takkaate rekk nee na góor gu tedd gi dal di génn si ni ma ndax Cheikh Dieng nekkul foofu ne ma ne ko ma wolla ko nee na waaxu ba ma doon waxu di wàccale escalier yi nee na buum ya tekkeeku mu ni ma dugub ji yëpp daal génn nee na ma gestu xool ko nee na keroog laa yéemu nee na kanamam na mu meloon dara soppeekuwu ci ñëkkul reewul na mu meloon rekk la mel nee na mu ni ma dama foog ni boo amoon ndab moo caa tane na ma ni ci sama xelu baay man maa ngi xaru ji mu naan ma soo amee ndab moo cee tane ne ma bëgg jéggi escalier yi mu ni ma tanga ndax dafa am yu cee ànd dafa xasan loo nit ne keroog la bàyyi safaanu àdduna yépp yépp luy safaan rekk ma bàyyi ko mu dëppoo ak li Fadil ibnu Ayaad waxoon moom itam nee na amul lu ma deful ci safaan te seetal ci aqtaab yi la bokk yàlla mujj na ko récupérer boppam te nee na amul safaan bu ma deful te yàlla xereñam dafa ëpp parce que léppam kodd la te code yi euh, euh, déglu rekk lañuy def Le vous ko pommes rek code hein? ne bu ko na trois heures du matin nous ñep mu ñu sax moustache <laughs> to kon bu ci sax kenn dootul parce que non la mel léppam code la parce que Fadil nee man luma ma deful ci safan amul nee me mais xereñam xereñam dafa ëpp nee ndeke bëgg na bu yàgg ma nek li ma nekk tey mu fexe ba won ma benn jigéen bu nga xam ni mësuma gis jigéen bu rafet comme moom nee na ma fàtte yi ma daan def yépp di taxaw ci koñ yi di fëkk saagi jigéen yi ak di jël def addu kalpe ne lu ne def naa ko ci àdduna nee na topp ndaw soosu daal moo tax ma bàyyi yëpp te nee na ndaw si ñemewu ma dem seen kër ndax wax na ma ni sama baay bu yëgee ni maak yow dañuy gise ñun ñaar ñëpp lay boole rey ne ba dañu d'accord ci ma bañ fa dem bëccëg guddi laa fay dem ñu d'accord ci loolu nee na ca guddi ga fa ma wax ni naa fa jaar yéege fa nee na ba ma fa yéegee laa dégg benn baatu alquran bu tax ma xawe ca kaw daanu ci suuf nee na moo ma sobe bu mu xëy nekk la mu nekk pour wax la ni code yépp ngi déglu lu mu wax rekk ñu def ko waaw kenn mënalu ko dara kenn mënulu ko dara boo gisee ñu naan doomu aadama moo di al alamul akbar c'est euh, mënuloo fexe mënuloo fexe ba doomu aadama nga def ci moom lu boroomam digalul kodd yi ñu yombal ko bu ñu ko yombalul rekk du mën nekk ndax lu nekk ngi ci biir doomu te doomu xam xamul loolu ñaari mag ñi toog di waxtaan ci biir waxtaan wi mer nañu bi ñu meree jóg nañu bi ñu jógee saagante nañ bi ñu saagante ñu ngee xeex bi ñoo xeex ñu ngee tojante bopp doole jooju leen boole ñu xeex fan la jóge pour wax la ni am na ku géré sa biir ko xam ni yow mënuloo ko dara ndax boobu neexu la wante am na moo tax nit ki balaa mën a yar boppam ba équilibre bi war mu am ko négociation bu ne dana ko def ak borom te loolu moo ëpp doole euh, wax nañ nii xam nga doomu aadama Euh, dama mës dégg sunu benn baay nettali naa leen ko daaw bu ñu wax Abdourahmane Sow Penda Mbàpp dafa wax Sëriñ Babacar ne ko man daal ndeke doomu aadama dex gudday na dexu ndara ngi ci lexam ba mu commencé nàmp mooy tooyal li moo nàmp ndax mu gaaw a rees ba ba ma màgg bu dee lekk mooy tooyal li moo lekk ba mu mën a gaaw a rees liquide boobu fu muy jóge parce que mat na dex su ko defi ci biir loolu am na ay daamis ak i jaraasim yu kenn xamul Euh, yu dëkke dex gi luñ fay def ci dex gi lañoo dunde te buñ ci dundul dex gi ëpp te bu dex gi ëppee boroom kër bu ñu solal mbubb ci suba balaa am waxtu dana ko yuut ba mu tooy xel wante yàlla ak mbindeefam yu tuuti yooyu di dund ci dex gi ñooy tax dex gi du baawaan ci xikmaam wante rab yooyu itam daañu dem ba ba nekk mag bu ñu nekkee mag kàttan ba ñu amoon di mànq dex gi dootu ñu am boobu kàttan looloo tax mag di yuut ni xaleel di yuute looloo tax façon bu nekk wone na ko ci kaw moom moo géré dund doomu aadama keneen géré ko façon bu ne wane na ko ci su ko defee kenn mënu ko ñàkk a sopp ndax ku mel lépp ñu sopp la moo tax kenn mënu ko ñàkk a sopp ndax ku mën lépp ñu sopp la yàlla dafa mën lépp fa man lépp mu mel ni kon nag ni ko yonent bi waxe rek mooy li ci nekk contradiction yaa ngi fi pexe amu ci waaye bu bu mu tax yépp yàqu ne contradiction yaa ngi fi yàlla wax na la ni euh, te philosophe yu bari gaañu loolu moo leen gaañ moo di contradiction yi am na ci ñu dem ba ni yàlla xamul lu mu bëgg te fekk xam na lu mu bëgg mais looloo tax mu nekk yàlla def lu ko neex a tax mu nekk yàlla def lu ko neex def lu ko neex moo tax mu nekk yàlla ndax la sunu mbokk chrétien bi wax ni isa bnu mariam ba mu nu waxee ba léegi nii na ngeen nekk ay mbokk nee na guerre jógul ci sunu biir te looloo am guerre yi ci àdduna yépp terewul isa waxoon na leen ni na ngeen nekk ay mbokk bañ a bañante bañ a xeex ba mu ko waxee ba léegi nee na xeex jeexul ci seen biir

kon fa nu nekkoon lu des fa dafa am xale bu tuuti bu nekk ak benn góor bu siiw euh, ci tubaab yi la ku ñoo wax Winston Churchill ca Angleterre deuxième guerre mondiale lu mu ci deful amul ndam bu mu ci amul itam amul yàlla àtte xale bu ndaw bi ni ko waaw maam yow léegi ak yépp bàyyi nga ko lenn rekk moo la neex jël ay toile di peindre yooyu rekk ngay def léegi dootuloo def dara te yow yaa sauvé Angleterre yaa mel nii yaa mel naa te mi ngi mel nii léegi màggee nga nag yaa ngi yaa ngi war a dee soo dee nooy def mu ni ko gis nga doom kaay ma jàngal la mu ko gis nga pax bi ñu may dugal mu ko mu ko bu ma ci duggé ba nopi ki ci kaw asaman moo may invité pour ma dem foofu mu ko fa démé premier million d'années ba ma fay passé duma ko consacrer lul ci toile yi ngay wax mais moom gëm na ni yàlla rey nit taxul mu ñàkk nit ki moom gëm na loolu gëm na ni itam bu ko yàlla yóbboo ca këram premier million d'années ba mu fay am lu ko fa neex mën na ko fa def loolu mooy ngëm loolu mooy ngëm li ci des du ngëm gëmantu la li imam Shafii yi wax nee na gëm baax na ñàkk gëm baax na nee na moo bon nee na gëm baax na ñàkk gëm na nee gëmantu moo bon na moom am na ci natt boo xam ni kenn nattuwu ko ko lu dul borom bi ci bopp ndax ne dañuy tukki xam nga ci seen jamono tukki oto amul tukki saxaar amul tukki gëléem rekk am ak tukki fas ne ñuy tukki ne na jigéen ñi defaral ma yóbbal ñaari ganaar nee na ma def ko ci lu ñu tuddee ak sufra espèce mbuus bu ndaw la te du mbuus dafa tàllalu boo ko tàllalee mën a kiis pesu euh, looy mën a lekke nee ñuy dox ba timis jot nee na ki ma àndal ni ma tee ñu lekk te julli timis ne ma ni ko ah déedéet parce que timis dafa gaaw a paase nan julli timis soog a lekk te ne gëmuma ko kat ah. waaye moom laa bëgg a séduire te waaye ne gëmuma ko ne nag lanu kàbbar rek benn saalab jóge fële gàddu benn ganaar ne ma def la ci yées parce que mënoon naa dog julli ga dabi ko ndax mi ngi may lor nee na ma wane ni dama gëm yàlla bàyyi saxlab ba mu yóbbu ganaar ga mu des benn ganaar nee na fi ñu sëlmale rekk nee na ma seen saalab bi muy ñëw ŋànk ganaar nee na ki ma àndal ma ni ko gis nga yàlla nee ndeke saalab bi li mu ŋànk du ganaar daf nuy nax nee na ñëw rekk ba teg ko ci sunu kanam sàcc ba ca des nee noonu lañ ca tool nee na ci ñuy tukki amuñu lu ñuy lekk amuñu lu ñu naan te loolu sëriñ mu niiru daf ko daan faral di wax di ko tooñe sëriñ Seexu Si bu ñu indee añ fekk waxtu jot ko defee mu tooñ ko ndax najaayam la waaye kalam la ni ko nañuy def nag añ julli walla julli añ ñuy tooñante ci boobu façon tabarkalla nit ñu ñàkk ci jamono lañu amatuñu waaw moo tax euh, dafa metti euh, seen wax dafa fess del ak xikma mais amatul ci jamono serigne babakar dan na wax ni mom wóor na ko ni serigne muniru mamam mokoy koy waxloo parce que lu mu wax rek hikma la lu mu wax rek hikma la keroog bi mu gaañoo man ma téléphoné Abdou Diouf ba gaañoogul ma ni ko dafa mel na waa hôpital principal dafa mel ni appareil ya fa nekk moo doon tane tee nga leen téléphoné ñu jël si sëriñ Muniru wante boobu fekk na mi ngi tëdd di ma tooñ ni ma avocat yi ku la ci gën doy ma ni ko Boissier kon na abal éloquence am ndax daal su ma ci cause ñuy reetaanante noonu dara jot ko lu dul bi waa hôpital principal accès jël ko ñu ànd ci oto bi dem ba jéggi bunt bi rekk fa la faatoo wante yàlla daf ko mayoon wax bu nga xam ne xikma rekk lañ koy mën a jàpp yàlla ko ko mayoon moo tax daan na wax ni nee na bokk ci coow li nee na xam li xew a ko gën bokk ci coow li nee na xew moo ko gën ku xamul lu xew bokk ci coow catastrophe baaxul baaxul daf ko daan wax moo tax mas naa dégg ci sama benn magu daara di di lépp ci man sax mën naa ko wax muy Cheikh Diop Diop Cheikh Diop doomu Serigne Diop yàlla daf ko mayoon xel tabarkalla tabarkalla tabarkalla te it lu ne mu dégg ko ci mag ñi ma di ci faral di waxtaan ak moom am naa ci moom njariñ yu ma xamul sax na mu toll ba benn bés nag ma dégg ci moom mu wax ni ñetti nit wax nañ ni ñoo dàq tontu ci àdduna sëriñ Babacar Sy sëriñ Tidiane si ak sëriñ mu Muniru